man maa ngi liggéey ci Parks and Wildlife suma boos eh, Pathé Cissé moom ma boole ak Bathily mi ku bugg liggéey la nag dafa ñëw ci man pour ñu bokk ñu liggéey ma ne ko ah liggéey léegi amul njëriñ di nga liggéey bi nawet bi yëpp di nga liggéey du am dara waaye mu ne nañ muñ reneen wàkkilu moo ta mu wane ma tool bi ma ñëw jàpp tool bi soo lu ma bugg su ma ko waxee mu indi ko du am ñaar xel so mbay bi tamit li ma ko wax ne li ma soxla si mbay bi su ma ko wax dafa ko def. Bachir nekkul ne ku xañaan la dafa bugg a waa Gambia yëpp am moo tax man bi ma nekkaa moom daal kontaan rek la am dafa nekkaa man ci àll bi di ma reyanti su ma buggee eh, ataya sax moom ma jëndal ataya amul benn problème. man ma ñaan yàlla ma àndaa moom ba faw parce que dama toog gis ne képp ku nga xam ne ànda na Bachir moom di nga mun a teggi di nga mun a def dara sa bopp tamit. moom liggéeykat la. Bathily moom dafa bàyyi ko Banjul ñëw toog ci àll bi di ma jàppale fu mu mën a liggéey fii so liggéey fu mu nekk nii danaka mbay business la ku amul xaalis doomu na a liggéey. nekkul ne dafa ma jënde jiw ak engrais dem toog moom si boppam mu ngi ma mu ngi nekk fi bés guddaa bés mu ci àll bi. kontaan naa ci liggéeyam liggéeyam baax na moom amul tapale mu amul moom liggéeykat laa bugga moo tax kontaan naa biram mbiram trop. na nañ góorgóorlu ñu jàppalante ñu liggéey yëpp ñu am njëriñ